mbokk Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax ni ñu ngi fii ci dixième édition euh, REIT fii ci Thiès tey nag maa ngi champion boo xam di la nuyoo wax mooy kan kilifa gi nuyu naa la. ñu ngi lay fay. tur bi Seydina Issa nekk fii ci bergerie Mame Saliou. waaw ah, bergerie Mame Saliou euh, nekk euh, fan. nekk fii Thiès quartier Darou Salam. a ngi ci trois box yu rafet. belle exposition. ma gis ci trois mâles ah. trois box yi nan la naka la tàmbee ak bergerie Mame Saliou kañ la nekk ci champion. waaw bergerie Mame Saliou mën nañ ne yàgg na si càmm gi yàggul si càmm gi parce que objectif am mooy à chaque fois liggéey des bêtes de qualité. pour mën ko teg euh, ci élevage bi ñëpp di ko gis ñëpp di si jariñu aussi loolu mooy objectif bu bergerie Mame Saliou. ñaata ngeen ñaata ngeen ñëw foire. ñun euh, bi mooy ñu troisième sortie si foire. waaw ñaari cees la beneen bi Mbour Mbour la quoi. waaw waaw. mais trois box fii ngeen yàgg leen ci càmm ñaata ngeen ci def. waaw euh, fi mu ne nii war naa mat quatre ans bi ñu du fixé woo ci laadum dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour pour liggéey ci dëgg dëgg daal war naa mat quatre ans waaw. macha allah na ci yan saa ngeen liggéey. waaw fi ñëpp jaar rek saa yëpp daanaka ñoo fi jaar. Mhm. mais actuellement ni si li ñu gën a wu di ci liggéey nii. mooy euh, xar bi ma taxawal mu ngi tudd champion Sakandé nekk doom si taksirip taksirip nekk doomu Garaaraan mhm. yaayam euh, nekk surtout Abdou Fall actuellement moom moo fi nekk ak ay jabaram ay jabaram yoo xamante ni sax aussi tamit capital génétique bu doy waar la ñu yor allah macha bi ñu nekk doomu taksirip moo fi nekk ah, taksirip ñu xam ko ji mu nekk doomu Garaaraan Ndiamé Fall yoroon ko Ndiamé waaw tey ngeen yor moom ñaata mois waaw euh, maal bi mi ngi si 27 mois 27 mois la am ما شاء الله نيو مل نيغا خامتيني سي موم لا ورا مل دون خار بو خامتيني سي ايلواج بيب نينغ كاي باي خير ايلواج بيب نينغ كاي خار ناخ شامبيون لا تا ان شاء الله دينا وني شامبيون لا باسكو كو خول برودكسيون بيم في ديف ني ديغا خامني ندالان دغ ميغي ني ما شاء الله مو اند نياري فمن واو فمن كان كالا بروم كوليه بروج بي اند دومام واو بروم كوليه بروج بي فمن بوب لا نيي واخ بوسو بالي bu sa baali nag mi ngi nekk doomu Timtimol yaakaar naa Timtimol kenn dootu ko présenté si élevage bu sa baali boobu noonu yaayam mi ngi nekk doomu Golden bu Jabel Golden kenn dootu ko présenté euh, ci yaakaar a moom yaakaar naa ay mbokkam kenn doon leen présenté si élevage doomu maam Matar la maam Matar nekk doomu Roi Saloum Roi Saloum nekk doomu Saloum Saloum côté yaayam yaay doomu avenir la. waaw avenir moo moo moo jur yaay ji avenir nekk doomu kilifa ak ñaari guy quoi macha allah. ñoom ñaari fi mu ay recrues lañ wala ay. waaw lañ ay recrues lañ bii mooy premier porté wala. waaw bii mooy premier porté waaw. Euh, euh, ji ñaata moo la am. doom ji 45 euh, jours la am. trop. waaw 45 dina beneen espoir moo fa nekk wala. non jeune mâle moo fa nekk jeune mâle moo fa nekk doomu Saakande la. doomu Saakande la. waaw doomu Saakande la waaw ah, Saakande mi ngi liggéey ah. waaw ah, ngi def affaire nag vraiment. jeune mâle boobu mooy kan kooku mooy Poutine. Poutine waaw yaayam sët la ci préfet. ok papa ji mooy Saakande quoi. ok Saakande nekkaat doomu Taksirib en même temps xam nga Taksirib nekk doomu Garaaraan. kon ça veut dire ni carte d'identité leer na quoi. waaw ah, ñaata mois. moom mi ngi si 13 mois. 13 wala. waaw mooy li ma la sànq rek bergerie Mame Saliou objectif ay bête de qualité nit ñi xam ne lii ay bête de qualité lañ bis bu ñu waree dugg concours nag pour wane nii war nañoo dugg daan dugg incha allah. macha allah euh, mu ànd fa deux femelles ak beneen añal. waaw ñoom ñëpp ñoo bokk papa. ñoom ñëpp. waaw bi seex la moog ñoo fi nekkandoo ak ñaari añal yu mu bokkal papa. ah jeune xam ñoom gis naa fa beneen mâle bu doy waar. waaw kooku c'est le champion Pam Ndaw xar la boo xamante ne si c'est le c'est le mâle équilibré de de parce que xar xar la boo xamante ni si doo ko xool ni njoolul doo ko xool ni guddul doo ko xool ni reyul kon ça veut dire que ni c'est le mâle le plus équilibré dans l'élevage fu si nekk yàlla may na am na am na ko fa may muy le champion Pam nekk euh, mâle boo xamante ni si mâle bu extraordinaire la mâle boo xamante ni si mâle bu élevage bi yëpp di bàyyi xel la parce que Pam mii nii soo ko xoolee papam mu ngi tudd Mandela Mandela nekkoon doomu avenir ba tey avenir bi moo waaw pam Ndaw bu ko dañ ko tuddé mais muy juddoo kër champion Abdou Tall. ok mais bokkul la bokkul la pam Ndaw bi pam Ndaw yoron non non bo bokkul la pam Ndaw bi pam Ndaw yoron bi turondom la nak ah turondom pam Ndaw la. machallah allah ok moom mu ñaata mois. Pape Ndaw amna 4 ans. 4 ans amna 4 ans. ba ngeen koy jël ñaar mois la. daanaka bobu ay 8 mois 9 mois ci Abdou Tall lañ ko jël ci Abdou ah, Tall lañ ko jël 8 mois 9 kon kon ki liggéey ngeen ci ah. waaw macha allah. waaw commandal. ay jabaram ay domam ay domam ay domam kan kan ñaar ay femelle lañ wala. wa ànd nak euh, ñaari femelle benn añal. ok añal benn añal. waaw boo xamante ni si añal bi doomam la femelle bi doomam la beneen femelle bi jabaram la quoi. ah ok macha allah kon daal eh, da ngeen indi Sakandé ak Pape Ndao ak seen production. ak seen production waaw loolu mooy élevage. parce que élevage tamit mâle aussi tamit. loo lu mu baax baax baax baax te tegoo fi ay production am day mel ni defoo dara. macha bi mu àndal fu mu jógee. femelle bi mu àndal euh, doomu RV la. doomu RV la RV nekk doomu préfet quoi. mais ci côté femelle bi aussi tamit yaayam doomu Mandela la. ok kontaan nañ. jox ma numéro bi. waaw numéro téléphone bi mooy euh, comme moo nekk si base bi nag mooy 78 112 45 72 ou 78 292 46 97. moom mooy moom mooy numéro bi quoi. ok bi nekk fan. bergerie bi nekk Lasere bergerie bi nekk euh, maanaam Daaru Salaam. Hmm. Daaru Salaam la nekk Thiès waaw quartier Daaru la nekk quoi macha allah.